Les patriotiques républicain Alliance pour la République, Initiative pour le développement, topp si réew mi topp ci parel teg ci IRD teg ci le parti socialiste la LDMPT le PIT les verts nekk les écologistes boole si MC teg si PVD teg si CATB di di mouvement boo xam ni que moom la Cheikh Ba doon diriger avant Benno Bokk Yaakaar boole si IDF mbooloo mi ñii ñooy parti yi nga xam ni que ñoo defoon résolution jébbaloon que le président de la République pour Cheikh Ba diriger la coordination de la Médina lii laa ni woon naa ko ci sànni bu ko defee nag li tax ñu daje fi tey mooy dañu bëgg xool situation Médina fu mu toog fi ñu toll ci politique. léegi damay jébal kàddu gi ki nga xam ni ki mooy Gallo Thiam ki Maguette Seye laa koy jébal pour mu digal Gallo Thiam mu liir li ñu bëgg a wax en français bu paree dugal honorable Ndeye Seydou bu Ndour mu tekkil ñu ko ci wolof. Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités, nous vous remercions d'avoir bien voulu répondre euh, à ce point de presse. Le prétexte, comme vous le savez, c'est bien la sortie euh, de M. Farbangom lors de l'émission Face to Face de la TFM animée par Aïssatou Diop Fall, où M. Farbangom à nommément cité le président Cheikh Ahmed Tijanba, coordonnateur de Beno Yakar, par ailleurs directeur général de la CDC. Comme quoi, il ne sent pas, lui, Farba, euh, Farbangom, euh, l'engagement de Cheikh Ba au niveau euh, de la politique à côté de Benno Bokoyakar. D'abord, nous tenons à faire deux précisions. Pour plusieurs raisons, Cherba, ce haut fonctionnaire de l'État, ne peut répondre à Farbangom, qui du reste est un camarade. Cherba, ce grand commis de l'État, est un fonctionnaire dans l'âme, très attaché au bien public et à l'intérêt général. Il est au service d'une éthique républicaine tel recommandé par le président Macky Sall. Précision faite, nous, membres de Berno Bokeyakar Medina, nous constituons, aujourd'hui en sentinelle pour prendre la défense d'un frère, d'un ami, avant d'être notre leader et coordonnateur. Nous rappelons ici que l'engagement de Cheikh Ba dans l'arène politique se justifie par le contrat moral qui le lie avec le président Macky Sall et depuis 2012, 2014. S'y ajoute le de leadership incontestée du président Macky Sall, président de la République. Sa volonté de conduire le Sénégal dans le renforcement de la démocratie en l'adossant à la notion de valeur d'équité, de transparence dans la gestion des affaires publiques, de la promotion de l'éthique à tous les niveaux et sa vision prospective qui commence à porter ses fruits avec les résultats tangibles de ses réalisations. C'est justement ce patriotisme politique qui explique l'engagement de Cheikh Ahmed Tijan Ba dans les rangs de la coalition présidentielle. Aujourd'hui, Cheikh Ba, qui a la charge légitime de conduire les destinées de Benno Bokayakar Medina, s'est fait violence sur sa personne depuis 2016 au référendum. Lors des législatives en 2017, la présidentielle de 2019, les récentes élections territoriales. Cherba a toujours opté pour une coopération active des intelligences de la Médina autour du président Macky Sall. Cherba, c'est de lui qu'il Il a usé de son carnet d'adresses en invitant les cadres de la Médina les jeunes les femmes le troisième âge de tous bords et qui s'étaient éloignés des sphères de la politique au niveau de la Médina. Ceux-ci ont répondu favorablement et lui ont apporté un soutien massif à la coalition Benno Bokk Yakaar et au président Macky Sall. Cette conscience républicaine et citoyenne de s'impliquer aux affaires politiques a fait de Cheikh Ba un allié sûr de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous sommes persuadés et sûrs que le président Macky est très informé, il est très au fait sur la situation au niveau de la Médina, à savoir si Cheikh Ba est engagé à ses côtés ou non. À quelques enclabures des législatives, nous pensons que cette sortie de Farbangom est inappropriée compte tenu de l'orientation du président Macky Sall euh, qui, en recevant le les membres du département de Dakar, les a instruits à travailler dans une synergie, une synergie unitaire. Cherba ne saurait déroger à la règle puisqu'il ne cesse de construire autour de sa personne une solidarité électorale au profit de la coalition Benno Bokk Yakaar ce qui n'était pas évident du tout surtout à la Médina nous sommes là encore et là toujours présents pour préparer les législatives de juillet prochain plus que jamais nous manifestons notre soutien indéfectible à Cheikh Ahmed Tidiane Ba coordonnateur de Benno Bokk Yakaar et par ailleurs DG de la CDC, pour sa loyauté et sa fidélité indélébile envers son Excellence M. Macky président de la République, eu égard à son leadership éclairé pour un Sénégal émergent. Nous vous remercions, chers journalistes, de votre aimable attention. Vive le Bernon, vive le président Macky vive le Sénégal merci beaucoup. asalaamaaleykum euh, mbokki Medina asalaamaaleykum mbokku Ndakaaru. asalaamaaleykum mbokku bitim réew. asalaamaaleykum la coalition Benno Bokk Yaakaar di jiital ci lépp nag sunu xarit sunu frère sunu leader Cheikh Ahmed Tidiane Ba. ñu naan tey nag li ko yëngal li koy li yëngu li ko yëngal la ko ëpp doole tey dañu laal nit bu xam ne ñun ba ñu juddoo Medina gii lañu juddoo Medina gii lañu ñu yaroo Medina gii lañu ñu màggee waaye dañu mësta gis ku mel ni moom ku gëmee ni ni Cheikh Ahmed Tidiane Ba gëmee président Macky Sall dañ ko gisul ci kenn ci Medina Cheikh Ba. nit la boo xam ne kenn xamalu ko ay wax wax da koy tardeel mais am na nag ay waxkat am na nag ñu ko gëm am na nag ñu ko bëgg rawatina coalition benn Bokk Yaakaar bi nga xam ne depuis le président Macky Sall falu en 2012 tuddatul APR coalition bi la tudd kon bu ñu laalee ki nga xam ne dafa nekk ci xolu coalition bi di l'homme social de la Médina di nit ku am fulla nit ku am fayda nit ku jub ci liggéeyam nit ku jëlee Medina démb indi Medina démb fa mu nekkoon yàqu mu indi ko tey ba ñëpp a gis ci seen bopp kooku dinu seetaan kenn di ko fàkkaagal Cheikh Ahmed Tidiane Ba doomi Medina la gëmul lu dul président de la république ñu nit gëmuñu lu dul président de la république ndax kenn réeroowul mbir ne Cheikh Ahmed Tidiane Ba nu mu mel tey président la ñun ñii toog nu nu mel tey président la muy nit nag bu yore pusoom di ñaw Cheikh a ngi defar Cheikh a ngi joxe Cheikh a ngi dox ku bëgguloon président Macky Sall sax boo jegee Cheikh ba bëgg président Macky Sall ñu koy liggéey amaana xawoon na jafe ci ñun xawoon na jafe ci ñun lool. mais bi ñu duggee ci Cheikh Ahmed Tidiane ba yëf yàlla def ñu ko yombalal te bu ñu naanee ndox ne depuis les élections locales huit mille cinq cent voix du lu lu xëy rek am ko dañ ko liggéey yombul kon kooku képp ku xam ne da nga koy da koy da nga koy naan da nga koy geer wala da am looy wax ci moom lu jaaduwul yaa nga yàqal président Macky Sall l'union fait la force président Macky Sall moo ñu ne Cheikh Ahmed Tidiane Ba laa jiital ci benn Bokk Yaakaar ñun nag bu dee lu ñuy gëm-gëm la gëm nañ ko wala li nu bëgg bëgg nañ ko wala bëgg nañu président Macky Sall mi nga xam ne lu lu nu mësul woon am ci senegal moo am ci Sénégal mu indi ko fi liggéey ko ñëpp a gis ko yàlla dox ko doom ju mel ni doomu Atoumane Badji mu liggéey lu rëy ci Medina. tey ñun ñëpp ku ci nekk boo amoon la naqare rek sa xol sedd na ci Cheikh Ahmed Tidiane Ba kooku dafa mérité nag un peu de respect kooku dafa mérité ñu sargal ko kooku dafa mérité ñu jàppale ko te lépp luñ koy jàppalee rek président Macky Sall moo tax élection yi passé firnde na ko wane na ko ñun ñëpp a jugoon di xeex yàlla mi maye ndam xañ ñu ndam may ko monsieur le maire Bamba Fall ñu koy félicité bu baax nag ndam gim ko may monsieur le maire munoon na dem yeewi askan wi monsieur le maire munoon na dem feneen mais dafa boole léppam ñëw jébbal ko Macky Sall ne ko dama lay jàppale ci Médina ñu defee ne jeex na mun a jeexul de amoon na ay leader yu fi ne am na ñeneen nag ñeneen ñu xam ne ay kilifa la ñu nekk ci biir Médina mu teggi fa ñëpp tànn kan ki nga xam ne day jëmale Médina kanam ki nga xam ne ku ànd ak moom am ndam am ndam mu ne Cheikh Ahmed Tidiane ba laay topp ci gannaaw jàppale ko kon loolu wane na lépp ay njañam dugg nouvelle vision taxaw wax na Cheikh Ahmed Tidiane ba mu neex mu naqari moom la ñu jàppale parce que kuy dem da ngay wut kuy demaat ah te Cheikh day dem dara du ko téye incha allah day dem ñu ànd nag ak moom ci ngor ñu àndak moom ci teggin mu jàngal ñu dal jàngal ñu lii ñuy def du lu mu yëg. lii nu muy def lii ñuy def gënalu ko waaye nag wax dafa jot il faut ñu wax te ku ñu dóor nag danga ne ayya wala metti na te ki ñu laal dañu laal xolu Médina dana dañu laal ki ñëpp a bëgg kon tey jii bu ñu toogee ba sub tey bii ñu yeewu démb dégg li ñuy wax sunu camarade Farba Ngom wax ko loolu daf ñuy jaaxal daf ñuy metti et en 2017 man ñaata yoon gis naa fi far ba Ngom ba tàyyi mu ñëw seet si frère am Cheikh Ahmed Tidiane Ba kon lii boo amee tey man wax ji daf may jaaxal ma wax nag bu dee dafa am ñu nekk ci gannaaw nanu bàyyi Cheikh Cheikh dafa ànd ak doomam nanu bàyyi Cheikh Cheikh dafa ànd ak ay jigéenam nanu bàyyi Cheikh Cheikh dafa ànd ak ay xale ñu xam ne nag dafa am fu ñu bëgg dem te sunu nga kenn duñu ko xañ ndax depuis mu dëgg dugg Medina ba fi ñu toog di liggéey ci social boobu fi ñu toll tey toll wuñ fa woon kon kooku xaaru ba di liggéey président Macky sàll bu jëlee Cheikh jël lu des lu nekk CDC dégg ko ko raxam ci raxam la ko jëlee jox ko Cheikh Ahmed Tidiane Ba mu liggéey fa liggéey bu rafet jàppale ñu ci ba fa ñu nekkoon ñun ñëpp ñu taxu si si moom kon bu ñu gisul woon ci moom avancement du ñu ànd ak moom nanu bàyyi Cheikh mu liggéey may xamal leen rek président de la République moom mi nga xam ne kenn ñoruñu ku dul moom ndax nu nu mel moom la bu la kenn jaxase kenn ñii ñëw di la wax dañ lay nax boo bëggee li xam Cheikh liggéey biir Medina bu ñu bëggee xam ni Cheikh toll biir Medina nanu wàccal seen bopp ci terrain bi ñëw waa laaj waa Medina Farba fi nga dëkk dafa sori yeewoo Medina dëkkoo Medina dëkkoo Medina añaam nga dëkk. ñun lijjanti añam la fa xew ñun lijjanti wuñu la kay lijjanti añam lijjanti kay marchel añam waaye nag sunu Medina ñoo ko moom munoo dëkk añam xam li ne fii te nag damay dalal xelu xolu eh, xelu président de la république nous sommes prêts sunu xeex yëpp pour au soir du 31 juillet ñu jël ndam li sedd guy jox la ko ànd ak monsieur le maire Bamba Fall mi nga xam ne moom la fi yàlla teg mu nekk maire bi ànd ak sunu leader Cheikh Ahmed Tidiane Ba jàppandoo bokk ndey ak baay victoire bi teg ko sa loxo ndax Bamba day dem Cheikh Ba day dem xamuma leneen mais ñaar ñii dañuy dem te ñun kii dem la ñuy àndal wasalaam maa ngi gërëm ñëpp di sant ñoom. képp koo xamante ni sax xel dafa jëm ci laal Cheikh Cheikh Ahmed Tidiane Ba yaa ngi ci musiba. l' engagement de ces jeunes. la détermination de ces jeunes montre aux Sénégalais que Cheikh Ahmed Tidiane Ba est une personne intouchable. dama ne dama homme politique di def mën nañ ko li homme politique di def mën nañ ko. mën nañ sandi xeer mën nañ xeex mën nañ saaga mën nañ defante fit baa ngi fii loolu la firndeel léegi nga gis cet engagement de ces jeunes cet engagement ces jeunes qui voulaient coûte que coûte prendre la parole c'est parce que ces jeunes sont engagés derrière Cheikh Ahmed Ba il faudra remercier cette jeunesse-là parce que jeune nga toog conférence de presse ñu tudd sa kilifa nga ne par force damay wax c'est parce que ces jeunes sont engagés mais nous disons à ces détracteurs de Cheikh Ahmed Tidiane Ba nous disons aux gens qui en veulent à Cheikh Ahmed Tidiane Ba nous disons à cette opposition qui est au niveau de la Médina que les jeunes de Cheikh Ahmed sont décidés à mourir da nga koy ñeme rek wala nga ragal ko wax piicoo mbaaloo bi am du dara lu dul engagement ak mobilisation du leneen lu dul loolu du dara lu dul engagement ak gëm du dara lu dul engagement ak détermination moo tax il faut dire gàcce ngalaama cette jeunesse là ku yaakaar ni dañ doon xuloo suñu biir yaa ngi ndax suñu bopp Parce que nous, nous sommes prêts, déterminés, engagés à faire face à ces adversaires qui sont en face de nous. Et personne ne nous empêchera de le faire. Je dis bien personne, à qui me donne. xam nga maintenant lu fi ne xam nga lu fi ne Médina bii Médina bii ñu dëkk benn chef moo fi am sur le plan politique il se nomme Cheikh Ahmed Tidiane Ba ñi ci nekk ñëpp dañuy topp ci gannaaw bootu parce que nag parce que nag du lu ñu décidé de ce sont les partis de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui ont dit que c'est lui chef de la coordination Benno Bokk Yaakaar ce sont cette jeunesse de la coalition Benno Bokk Yaakaar qui ont dit voici le chef de la de la la Médina ku ko bëgg dindi suñu bakkan lañu lay jaay. loolu mooy benn. ñaareel bi ñaareel bi xam nga lan la. ñaareel xam nga lan la. nous parlons à ces responsables du département de Dakar. Cheikh Ba day am cër par force dans le département de Dakar by force. by force. nous pesons 8000 voix. nous sommes sortis nous avons perdu mais nous avons sorti premier dans le département de Dakar. nous avons nous sommes sortis deuxième. mais dans le département Dakar amul Benno Bokk Yaakaar ku ñëpp voix suñu cër nag dañ ñu koy jox ci département bi suñ ñu ko joxul ci nii ñu jël ko ci nee te kenn waxul nag c'est Adus Fall qui parle et quand Adus Fall parle la jeunesse suivra suñ ne woon léegi tout de suite ci mbedd bi tout le monde suivra parce que cette jeunesse là est engagée derrière Cheikh Ahmed Tidiane Ba du nit bu ñuy ñàkkal fayda du nit bu ñuy bëgg a toroxal nit bu ñuy jox cër la par force maintenant maintenant lu coow li bari bari bari bari bari dañuy jëm élection suñ nee élection mbooloo la ki nga xam ni nag dafay douter par rapport à l'engagement d'une personne Mais c'est l'engagement de Cheikh Ahmed Tijanba qui nous a poussé à avoir 8500 voix. C'est l'engagement de Cheikh Ahmed Tijanba qui a permis à cette jeunesse de la Médina de trouver du travail. C'est l'engagement de Cheikh Ahmed Tijanba qui a permis à Macky Sall d'avoir des avions. Si, Macky, si Cheikh Ahmed Tijanba n'était pas engagé, Air Sénégal de Tahaou. Si Cheikh Ahmed Tijanba n'était pas engagé, on n'allait pas avoir ces résultats dans la CDC. L'engagement militant ne se résume pas à faire le tour des médias, à rencontrer des contre-vérités et des kassao-kassao. L'engagement militant, c'est d'être sur le terrain chaque jour et Cheikh Ahmed Tidiane Ba sur le terrain. ku ko wax ku ne nag. ku ko wax ku ne. ñu taxaw ne la kàcc nga wax nga dudul dëgg. mais nag ci wax jooju. dañuy woote ndaje. mbooloo li ñuy wax mooy Bamba Fall de nangu na. Ah? mangu Bamba nangu na Cheikh Ahmed Tidiane ah, Seydou Gueye nag day nangu par force day nangu ci bii mu nangu ci dee dama ne dama ne dama ne dama ne dama ne dama ne bàyyi leen bàyyi leen ta dama ne Cheikh Ba dina jiitu mu neex waa Medina mu naqari leen mais ña ca des dinañ topp ci gannaawam par force. loolu moo waral waxtaan bi dañ doon dolli rek di mottali parce que Gallo Thiam mënul wax li mu wax Sadia Seydou Ndour wax ci li muy wax cette jeunesse engagée et déterminée taxawee taxawaay bii te duñ leen sargal duñ leen jox gàcce galaama. su Cheikh Ba dundee ba tey su Cheikh Ba taxawee ba tey sur le plan politique c'est parce que y a des jeunes et des femmes et des cadres engagés à l'accompagner donc du ñu wax ñeneen damay damay damay artu ah. damay artu. baax na baax na damay artu laa wax. c'est bon c'est bon. APR laa bokk. je fais partie de ces communicants de ce parti. je fais partie du directoire de la communication de ce parti. et nous n'accepterons pas qu'on se qu'on le minimise ak ku ko minimiser ku ne nag ñun waa suñu bakkan bii lañ lay jox loolu la ñu bëggoon wax ñu def ko ni ko waa ji defee rek wasalaam.